leen xela fatun malaki di jaale itam bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi Ablaye bu euh, Cambérène ak Yoff ah, euh, moom itam kilifa diine la jóge àddina euh, génn àddina ñu ngi koy jaale di ñaan yàlla yàlla yokki leeram ah, Baye Abdourahim ñu ngi koy jaale mbokki Thiénaba gi yëpp di ko jaale ay njabootam ay doomam di ko jaale nag Baye Baye Assane ko Baye Assane Seck ñi nga xamante ni tey jii moo nekk ci eh, eh, jal bi mooy xalif général bi waaye di ko jaale ay doomam te ki ci ay doomam eh, di sëñ ji bi di ko jox jaal bi ah mu jot luñ ñu ko waa ahlu cekkeen yépp ah euh, xibaar bi biñ ko yëgee euh, euh, bett nañu oh, ndax sëñ bi bi mu jógee di dem tëddul feebarul ah mi ngi nekkoon ci jàmm ak salaam ñoo bokkoon def nekk tabaski tabaski gi mu def ko ci jàmm ak salaam waxtaan ak njaboot gi ah bi muy demit mu waxtaan ak ñoom tàggatoog ñoom ah, ndekete tàggatoo boobu nag yaataloon na ko lool yàlla daa def xam naa eh, mu gisoon ak demam eh, tax tàggatoo boobu mu yaatal ko ah kon nag euh, ñu ngi sant yàlla bu baax ndax bi mu koy mujj a gis ñun euh, booba mi ngi ci ak euh, wér-gi-yaramam ah kon nag feebar bi yàggul ci moom feebar bi sonalu ko ah, loolu nag def nañ ko def na ko ñu indi ko ci maanaam euh, ñu ñu toppatoo ko ci jàmm président bi nga xamante ni mooy président de république ak ak gouvernement ak euh, autorités yi nga xamante ni ñoo nekk Thiès muy gouverneur sous préfet préfet sous préfet ñun ñëpp taxawu nañ ci ba euh, ñu ngi koy indi ci jàmm ak kon nag taxawu yooyu tax na suñu xol sedd di leen jàll ñi nga xamante ni yëpp taxaw nañ ci ah loolu daan mooy li nga xamante ni moom lañ yëg ay ay ay gërëm ay. jaal yoo xamante ni euh, moom lañu def ci askanu Sénégal gi yëpp euh, particulier nag muy julliti ak euh, na ba ak ñi nga xamante ni ñëpp taxawu nañu bis bii di ñëw. mbas mi contexte bi nga xamante ni moom la sëñ bi génne fekk na ñu nekk ci mbas waaye nag ñaani kilifa yi ñaani Baye Abdourahim laata mu fiy jóge ak yoo xamante ne ay ñaan yu joxe woon pour rek feebar bi wàññeeku. tax na euh, Thiénaba euh, di sant yàlla Sénégal nag euh, sentir nañ ko lool waaye Thiénaba moom seen xel dal na a eggaguñu ci benn étape bi ah man nag haut conseiller la yàlla day def may haut conseiller ahlu Cheikhou Thiénaba sëñ Thiénaba jox ma poste bi ci ndigalam président de la république nommé ma muy ay taxawaay yoo xamante ni dama koy taxawee ci baay Cheikh Thiénaba maanaam tàmbalee ko ci Baye Cheikh Tidiane Seck ah di ñaan yàlla yàlla yokk leeram waaye itam di yeggal continuer ko ci Baye Abdourahim Seck di ñaan yàlla moom itam yàlla yokki leeram ah di ñëw nii di jox suñu bopp Baye As xamal ko ni ko ndombal tànk gi nga xamante ni yàlla def na président de la république jox ko wàcc na ba eh, eh, jagleel leen ko man mii lañ ko joxoon kon nag maay ki nga xamante ni daan nekkal naa leen ci président de la République kanam président de la République ah fasal yéen a ko mérito nag fasal yéen jàppale leen ci loolu fasal yéen taxawal leen ci foofu fasal yéen lépp lu ñuy def mu nekk seen digal lépp lu ñuy def ñu ànd kook ñoom lépp lu ñuy def muy seen ndam waaye di ndamul waa Thiénaba itam ndax ginnaaw ndawul Thiénaba lañ dañuy bëgg dox tànk ndaw yooyu ba mat sëkk kon nag lépp loo xamante ni

jox leen ab cër ni mu ko joxee cëri euh, kilifa diine yëpp ni mu yëge Thiénaba di fi ñëw ni mu yëge Thiénaba xam li nga xamante ni ñooy askanu Thiénaba a ah, moom itam ñoo ngi koy delloo njukkal ci côté boobu di ko gërëm di ko félicité di wax itam nag ni dañuy and ak mom ba suñu kemt layil karta tank ñongi man di and ak mom tank ñongi man di and ak sëñ bi tank ñongi man di and ak waccena ba ngir ba jëm kanam ndax liggey liggéeyuñ suñu bop président bi lañu liggey liggéeyal ak xalif général ak njabootu Cenaba am message euh dello seen bop ci yalla message fagaru aussi ñoo ngi nekk ci période boo xamante ni bari na ay ñuy génn àddina ah am na ci ñi ëpp ca ñoom ay mag lañu kon nag ñu ngi demandé ndaw ñi moytu ba bañ a wàll mag ñi lu leen di lor nañ jël euh, seeni disposition di raxasu di task takk seeni masque Ah, sama masque dal nek ni ndax lima ma yor ci micro bi waye sumay paré pare di takat sama masque kon nunu nonu makoy koy non lay ñaané ñepp respecté euh li nga xamanteni mom la autorité yi wax ah moytu fagaru ndax nenañ fagaru mo gën faju ah yalla def na nak eh, comme ni nga ko waxee ay mag génn nañu eh, mag ñi nak li ñaan mom mag bo démé mu dem bo démé mu dem daa tombeek ñoom euh, euh, mu nekk seen période ñuy dem waaye euh, mag ñi nga xamante ni boo demee mu dem boo demee mu dem dem ndaw ñi nekk fi ak seen doole ak seen liggéey ak njaboot gi ah loolu xaw na dal xel xaw na dal xel ndax mag ñi ñoom dañuy toll état boo xamante ni duutu ñu sax bëgg a bu ñu demee toog état boo xamante ni dootuñu bëgg a toogate def li ñu war a def yëpp ci jamono génn àddina dañu di ñaanal ñaan yàlla nag ndaw ñi nga xamante ni ñoo fi des ah man leen a mën a toog mën a ànd ku wér ba ñaanal leen ni ko bëggee waaw loolu daal mooy mooy wax ji ah di bala may bàyyi nag ñi nga xamante ni suñu mag lañ di di di di di jàpp bu baax a baax ci di ñu conseillé ah conseil yooyu dañ leen koy jox conseil yooyu dañu leen di bàyyi lépp loo xamante ni wax nañu ko tàmbalee ci euh, sëñ Baye Dieng ñëpp xam ko ci ay taxawaayam ñëpp xam ko aussi ci Baye Abdourahim ndax li mu doon ci kër gi kon nag lépp lum ñuy conseillé dañ cey ànd ak moom ak ñeneen ñi ci des kon sëñ mbay mu ngi sant bu baax say taxawaay a ah, di la bàyyi nag ah, di continuer di tàllal loxo yi loo ñu digal ñu def ko loo ñu ñaanal ñu jël ko ndax ay daara la doomu euh, euh, daara li muy def ci xaalisam ay poos di ko déployer ci ay xale kenn xamul nu mu toll loolu yëpp nag yiw woowu yàlla na ko ko yàlla fay jërëjëf xula aadamiyin xel fatun malakiyatun